internet public SN nuyuwaat naa leen di rafetlu ànd bi ak kóolute bi ñu dikkaat ak yéen ci beneen xew-xew bu am fële ca ci centre boobu di nouveau lycée de Kaolack jàpp leen ni nag foofu daal daal dinañuy dàkk cinquante candidats maanaam dañ leen exclure ci seen centre euh, d'examen yi jotuñu passé rek benn épreuve ndax laata ñuy démarrer examen yooyu le dañu daal di fouiller seen saag yi malheureusement ñu fekk ci ay téléphone portable te mu nekk loo xam ne rek daal dinañ koy tere ci li nga xam ne mooy examen yi dàq ko te it nee nañ duñu ko baale benn yoon rek mooy communiqué def nañ ko si bind ci seen convocation yi ne li nga xam ne rek moo téléphone portable nekkul loo xam ne dañ koy nangu duñu ko baal kenn benn euh, candidat bu ñëw yore téléphone portable rek dinañ la daal di malheureusement nag ñoom indi seen téléphone ñu jàpp leen daal di leen dàkk li leen dese rek mooy dem fi nga xamante ni office du bac xool ba xam commission discipline dinañ leen jéggal bàyyi leen ñu def rattrapage am déet lu si mënti am rek dinañ si dikkaat ak yéen fii si public sn bu leen rek faté mukk di abonné ci suñuy euh, page wala rek ngeen ñu suivre ci suñuy plateforme digitale yépp mu di Twitter Instagram TikTok ak fépp fu mënti doon jërë ngeen jëf